yu mat a lu mat a bàyyi xel la coono bi war ci jigéen ñi ci jàngale yar ku ko def ba mu sotti rek di nga soppi suuf si muy aljanna amul sax werante di nga soppi suuf si muy aljanna xudu xudu نصف دينكم من هذه الحمراء moom la yonent bi waxoon léeg eh, ñu dab ko ci àtte mu mu joxoñ sayidatuna Aïcha ni ndaw su ndaw su xonq sële ngeen di xeeb jëli leen ci moom seen diini xam na lépp ah waaye sa doom bu jigéen jàngal ko ba mu raw sa bu góor jàngal ko ba mu raw sa bu góor waaw dimbale ko dimbale ko ba lu mu war a def ci pénc ma mu dëkk mu def ko ak dignité ba mu dëppool ku leen ni bàkkaar ba xamul sax lu xew waaw ku leen ni bàkkaar la xamul sax lu xew ndax kat arab yi dem ci wax wax bu metti jigéen dafa tedd ba boo ko yarul bu ko jëndal takkaay jigéen dafa tedd ba boo ko yarul jàngaluloo ko taxawuloo ko bu ko jëndal takkaay nga jëndal sa kaay yaa ko toll lu muy lu muy doyee lu mu koy teg ah lu mu koy teg bu ko jëndal sa kaay parce que lu ne dafa am priorité jigéen xam-xam xam ne yar mooy takkaayam bu jëkk bu ñëwul ba ma doy bu ko jëndal wurus jaratu ko waaw mu dikkul ba mu doy bu ko jëndal wurus nag jaratu ko laka baa shaari laka baa shaari ala babikum kama baa iqdun ala xaalifa aha lu ci nit mën